bu ñu la peesalee nag say balance wayef wa amma man xafat mawazinuhu koo xam ne ay balance am dafa wayef toy benn daa jëfutoon mbaa lam jëf doyut mbaa ay bidaa nekkoon ci ay bidaa li dama nañoo yee julli ñi de julli ñaa ngi jëf rek waaye ndax la jëf moom la Muhammad doon def sallallahu nga daa bokk ci fulla jëf jooy jëf nga laaj ba xam nan la ko Muhammad defe woon sallallahu alayhi wasallam nga xam nan la ko Muhammad laa wax de defe woon sallallahu alayhi wasallam nga defe ko noona jeex na lu Muhammad defut bu ko def bu ko xalaata def donte ñëpp maas nañ di ko def soo yónni ko yow yow Muhammad lañ la royloo sallallahu alayhi wa sallam laqad kaana lakum fi rasulillahi jëpp jëf joo teg ci sunna moo xam néew na moo xam bëri bu bëree mu gën a baax waaye bu néewee itam du la wàññi dara lan moo am ñàkk solo mooy bidaa loo xam dañ ko sos loo ca def lu mu bari bari bari bari bari pënd lay doon ëllëg yomal xam doo ko fa ko kon koo xam ne say mawasin dafa wayef toyyu ëllëg fa ummuhu